Monsieur le ministre, permettez-moi à l'entente de mon propos de rendre grâce à Dieu qui nous a permis aujourd'hui de se retrouver ici pour inaugurer le guichet de l'Union rurale des mutuelles d'épargne et de crédit du Sénégal, le guichet de Koutiaba Wolof. Mais aussi de procéder aux remises de financement de l'ensemble des groupements de femmes réunis dans des fédérations depuis que je suis arrivé à la tête de la municipalité monsieur le ministre je ngi lay gërëm nous sommes lay sant bu amul remercier le directeur général Bidjel Kadou Legui, le docteur Savané je suis installé le 10 février le 9 mars Je ngi je suis un maire nouvellement élu dama bëgg nga jàppale ma commune Kouchaba. ma jàppale leen ci financement mu ne ma ñun du ñu financer directement am na ay banque ak ay mutuelle yu ñu agréé signé léeg ñoom contrat ñooñu la ñuy financé ñoom ñu financer acteurs yi ma ne ko ñooñu ñan la mu génneel ma liste lu mat fukki banque ak lu teg banque bu nekk ma gëstu la gëstu la li njëtti la xool ba gis Urmex ni muy liggéey ak askan wi mu nekk lu oyof ci askan bi ma dem seti wa urmex waye loolu bla mo am FADCR fi yoni mission ci bir wéru koor bu tang jër FADCR ñew fi ak jigen ñi rencontrer len waxtaan ak ñom laaj len lañu bëgg lan la ci financement laaj len seen jafé jafe ñu wax len ko wa FADCR dem geussu gis né ñi war na len mëna financer. wa mutuelle d'épargne et de crédit du Sénégal yombalal ñu liggéey bi ñu ñun ci gox bobu amuñu fa guichet mën né nak at ci kanam ñu tabax fa guichet wala ñaar at ci kanam man leen bu lool rek moy tardel mbir mi man en tant que maire naa jël sama responsabilité defaral leen local bi jàppale ko jigen ñi. loolu bu amé bu amé bës bu toll ni tay mu nek une première ministre mo koy wax légui légui tout événement est un avènement aujourd'hui nous assistons à l'avènement du développement de la commune de Koutiaba Wolof sous l'impulsion de son excellence M. Macky Sall président de la république Nous président Macky Sall majorité à l'Assemblée nationale pour nous, pour nous am dañuy bolo, nous avons jël suñu nous ko ñu yaatal mbir mi maire yi ñu ñu président conseil départemental li ñu le directeur général de la FADCR le directeur général de l'URMEX balaa ngeen fee jógee bëgg naa ngeen jël contact ak ñi nga xamante ni mooy sama collègue maire yi fi ñëw li ñu def fii Koutiaba ñu def ko ci communes yi nekk ci biir département bi yépp dama ne si jamono bi ñu nekk mooy jamono élection législative élection législative yooyu noonu Macky Sall dafa tànn ñaari nit ne leen yéen yéen may représenté ci pencu ndaw réew ma pencu ndaw réew bu ñu ko waxee mooy assemblée nationale penc penc moomu département Koupantoum ma ngi ca am ñaari toogu lii wolof di wax toogu mooy place place yooyu parti bu ko gagné ya koy dem djel fi nak ki fi nek Macky Sall mo fi nek ci département bi El Ibrahima Ndiaye tay mo yor drapeau Macky Sall ci bir département bi mo nak suñu sœur Teneng Diao ñun ñu gungé len maire yëpp gungé len waaye Macky Sall kenn du mom xamul wax kenn du da fay xol fu mbir mi dëgëree mu mbeuk yëngal gësam dama ne mu mbeuk yëngal geusam mbeuk yëngal geusam mbeuk yëngal geusam lol moy kilifa mu wo suñu frère suñu xarit borom xam-xam Tamia Silla mu ngi ni tok recevoir ko birom dalal ko ne ko sama rak sama xarit ñewul nga jappale ma Tamia mu ne ko lol duma ci tek baat dana la jappale ñu ne way li ñuy wax rek bu mu doli ñeex mu woo suma xarit suma rakk Ousmane Gaye mu jóge ci parti bi nga xamant ñëw fekk si ñu pour jàppale ñu ñu ngi ñuy toog ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di sant waaye dama ne boo nekkee député am nga ko topp sa ginnaaw ku jigéen ki ay Dia jaabi mu ngi fi toog Talla Sow mooy suppléant Ibrahima Ndiaye yónnee na dama ne lan moo des li des mooy ñu jàpp ne région Tambacounda la ñu wax keroog ba sama najaay Sidiki Kaba jëlee yóbbu ca Macky Sall la mu wax mooy région Tambacounda pourcentage bi gën a mag ci senegal Tamba moo koy def ñun du ñu yendal du ñu fanaanal di leen def lépp ba jël ndam li teg ku ci loxo maître Sidiki Kaba yaakaaru Tambacounda mu jël ko teg ko ci loxo président Macky Sall Macky Sall defar réew mi ni ñi am jàmm ni ñi am salaam. jeunesse bi na ngeen préparé wu na ngeen préparé parce que combat bi yéen yéen a koy gàddu combat bi yéen a koy porté am naa ci yéen yaakaar muy la jeunesse féminine et la jeunesse masculine ngeen dëggal seen bopp organiser wu formaliser wu am ay kayit parce que liggéey état da koy joxe mais état mënul jox ñëpp liggéey.

Si me fi je féliciter le maire Abdoulaye Ndao di ko wax la mobilisation initiative lu mu fi def lu lu mu fi pour la mutuelle des femmes lu c'est une première lu mu fi def dans les six mois lu c'est une première Nous encourager comme moi, ni mu encourager ni mu féliciter la deuxième chose li nga xam ne wax président de la république Macky Sall lu mu gëna bëgg département de Kumpentum, ñu nous nek ndey ñi nga xamné président du conseil départemental Oumar Sy waxnako Nous unité bi réalisé nañ ko fi lolu tamit def nañ ko Tamba ndax gis fi maire

le maire wax na ko lu mu def kenn defu ndax engagement rek moo ko docteur Savané wax na ko à peine ñu élire ko mu dem foofu convaincre ko wax ko kooku wax ko mënuma fi ñëw ndax fu ma fi ñëwee il faut nécessairement que nous ayons beneen structure bi nga xam ne moo war en charge cette question découragé wul de non la demee ci URMES te gis ngeen léegi li nga xamné ne rêve lañu réaliser ñu réaliser nañ ko fi ci Kouthiaba wolof ku ko réaliser moy Abdoulaye Ndaw diko ci sant amna message bi nga xamné mom ci bopam lancé nako jigen jigéen bu len faté que li bor la bor dañ koy fay ngeen liggéey ngeen fexé ngeen def ko à temps pour que yeneen jigéen ñi nga xam ne amuñu ko nous avons 10 communes, 10 collectivités euh, euh, territoriales. qui ont bénéficié de prêt. Donc, nous avons un peu Mais nous avons un solo. Ibrahim avons candidat. Ibrahim Ndiaye, Tenen Diaw, Axen suppléant, Talassau, euh, Aïssatou Diaby. Tamba Tamid, nous avons un candidat. Yay Awadjan, un Bilaliba. Yenen gochi au niveau du e de la région de Tambacounda il y a sept candidats au niveau de Kédougou nous avons trois candidats l'Oliop candidats nous pour nous ñu gagné du l'enen Abdoulaye Ndaw nena Benno yaaka Benno Boko c'est la victoire 31 juillet non 31 juillet non 31 juillet non 31 juillet ñoo